salaam salaam salaam juma mubarak juma mubarak woo leen ma Mimi Touré mu def jéegu mbaa mu def jàllaabe def xijaab Mimi Touré génnal teg kaasu buy ndax danga dog li nga wax yépp Mimi Touré li nga wor Macky Sall yépp sénégalais xanaa xamoo ni sénégalais bëgg nu ko wor ay sénégalais bàyyi leen wor ñi may waxal xam nañ seen bopp bàyyi leen wor yéen ki ngeen gën a aay mooy ki leen di dimbali ki ngeen gëna a aay mooy ki la dimbali ba nga ñoŋ yéen sénégalais gaaw da ngeen a da gaaw ci moom toroxal ko Mimi Touré génnal nga naan buy bu sedd sa torox tànge gii danga defe nii waa kër sonko yi dañu dof sonkook jomaay dañu dañu dañu li nga yekk ma Macky Sall di génnee ay secret état ci kii la teral def la nu ne noonu nga mel noonu Macky sàlla la ko def Mimi Touré ba ngay ñëw xam nga loo doon nuróol gis nga jaamu américain yu ñuul yooyu moom nga doon nurool def sa bopp bu téyiñ xemes gi la xale yi di woowee moom nga doon nuróol nga ni dangay toroxal Macky Sall daw ca ca Sonko mi nga doon wax lu ñaaw danga defee ni Sonko dafa paagal ak jomaay yow fu ñu lay dugal ay waay sarax leen ko yóbbu ko ci ambassade yi <laughs> sama mag ji dafa rus torox yow da nga defee ni kenn day Macky Sall yow kenn def dina la dimbali nii mu la dimbale doo femme d'état dangay nettali soo amul pour sa bopp yow Mimi Touré da ngay wax Sonko Diomaye be careful my dears aka leen a bëgg a xam pour nettali leen ay Mimi Touré yow xamoon nga ni doo baax ku wor ba déwén ñu ne la danga wor mu jik la ba déwén defoo ko dañ la ko jiiñ gis nga ni nga ni ni nga wàccee bàyyandeku ne ràcc Mimi Touré ñu toroxal la ñañu fal yépp fala sama mag ja def nga jàng ko ëpp Mimi Touré goreel Mimi bu ma doon yow man Coura Macky damay génnum réew ndax dama toroxal ki ma gën a bëgg yéen sénégalais ci loolu ngeen di dund di toroxal nit ku la dimbali di toroxal nit ku bëgg nga ñoŋ di toroxal ki la bëggal lu baax wor bi bari na Sénégal def leen ndànk sunu boroom a ko wax ku wor ma woon la Mimi Touré danga ruus ma ruus senegal gépp jéppi la man sa rakk ji ma rus <laughs> di la ree naan ana sama mag ji fan lan ko teg ndax teg nañ ko fa ko sama mag ja ma Sall sàll tegoon ka tax ma sopp ko bëgg ko ndekete naa feq nga tekki woo dara sa boobu téeñ nga torox fa la ma Sall sàll tegoon kenn dootu la fa tegati li des sa rest of life Sénégal pare pour jigéen jiite leen danga fàtte ni Sénégal fa la ñu toroxalee jigéen yow Mimi Touré dootoo ko defaat nañ la sarax yóbbu la ci ambassade yi wala consul yi <laughs> kenn du yow te fi